itam maa ngi ñaaxal nit ñi mhm. ñu góorgóorlu ci mhm. seen faraayda mhm. rawatina waxtu juróom ñu fonk ko ci di ko def ndax kat euh, am na waxtu woo xam ne lu ci mel ni waxtu tàkkusaan nit de koy sàgganee xëy ñu dàqu place am dama koy wax toujours te fekk dara warlu ko loolu sàgganee tàkkusaan man léeg leen nit ñëw fi ma xool ko xoolal ko ay mbiram jékki-jékki laaj ko ko sëñ ndax yow yaa ngi julli tàpp sax mu man farataal mu julli sax hmm. man la kon kat man di jarul man la ñaan booy boo dem hmm. hmm. ci wàllu jaaru fa nga bawoon fa jàppoon yépp baal te ñëw sama jaaro nag man aw ma nëbba nëbbal ko nëbb wane jaaro eh, ak comme sama jaaro yi ma takk wala wane jaaro yu pewe mhm. naan bii bu ñuul la bu xonk la man loolu du ma ko def am na ñu koy def nag mhm. critiqué wu ma kenn mhm. waaye man damay wax li nga xam ne mun naa liggéey jaaro sama jaaro bi may liggéey dama koy wane nii ngeen gis ko nii laa koy liggéey xati nii dégg nga ak ay laaj yu ma sànni ci ginnaaw nii képp koo xam ne dama ko ko jox danaa xam sa tur ak sa tur yaay adresse ko dugal fii ci kaw ak fii ci suuf tëj ko jox la ko képp ku ma ko jox. dina am fatu akbar. di nga am. fatu akbar. fatu akbar mooy lan. ubbeeku ba sa bopp. ubbeeku. boo daan am benn. waaw fukk ngay am. fukk ngay am ko ñi gis ko parce que jamono. Mhm. dafa yàq te doy waar. ndax léegi euh, dañ naan ñu baax ñi. Mhm. ñu bon ñu yàq da ci nga koy essayer. maa ko bala ngaa génn fi naa leen jox benn. dañ ne ñi gàmmu ñi ñi lépp lu ñuy def fii dañ koy leer mu leer nañ. mu leer waaw dañuy am na xalwatu dañ boo xam nañ koy la ci alquran. Mm-hmm. moom juróom-ñaari fan la. juróom-ñaari fan waaw dañ koy def ay ndog yi quran la. Mm-hmm. dañuy jël. Mm-hmm. boo xam ne. bis bu set dañ jàng nangam ci ay saar. boole ko ay askar. dégg nga ba mu juróom-ñaari fan. Mhm. bi ma laaj la nga baal ma ndax li nga fi wax yëpp euh, leer na ndax euh, wan nga ni ni yow li ngay wax nii li ngay def nëbboo ko nee nga képp ku ma ci jox lii jox lii lu ne appal nga ko. Mhm. waaye comme li ñuy wax rek dëkk bi tey da toll na foo xam ne tamit dafa yàqu. Mhm. nit ñu bëri bëgg nañ di dem ci sëriñ yi bëgg nañ ko nag. mais dañoo xamatul fan la ñuy dem. du ma la ko nëbb ndax nit ñi bëgg nañu dem waaye bëgg nañu dem foo xam ne bu ñu fa joxee seen xaalis ah mu am retour ndax ñi nga xam ne aussi ñi ngi dem di joxe seen xaalis ndax sëriñ amul delloo ñu bëri dañuy dem nga jox leen jox leen ay xaalis bu bari ñu liggéey la te doo gis résultat ñooñu nooy nooy def ak ñoom. Ah, man ne damay wax ne toujours. Mhm. bañ ne adduwaaw silal mumin mhm. lañu noppal ñaan mooy nga naan jullit dëgg la yàlla noppal ñu mhm. adduwaaw nii astajib lakum yomb na mhm. leen ma may leen koo xam nag xam nga jaar waaye yàlla waa dana damaa dégg olof moo ku ñàkk yàlla moo la mu ne wet yàlla moo la jox ku ñàkk dangaa jaarul yàlla fa nga ko war a jaaree ndax yàlla képp koo jaar fa nga war a jaaree mu jox la mu jox la képp koo xam ne jox na la xaalisam mu toll man nag damay wax mu leer. Hmm. man kéemtu nag ma jox kéemtu laay lay ñaanal toujours sama. ah lam la jox ca lan nga koy ñaanal. ah ok sama euh, parce que tamit bu ñu naxante. Hmm. am na kilifa koo xam ne yàlla yàlla yokk leeram te tas ñu ci barkeem. Hmm. ci jamonoom daal mu sa ñëw ci moom jox ko ab kayitu dollar mu ñaanal ko mu dem mu ne bëgg nekk xoolal diw mi. la mu fi joxe mun na ko daa mel ab kayitu daal mun na ko daawal ma woy ko moom de ba ma jox damaa yaakaar ne am la ma jox. Mhm. kayitu ñaar dërëm jamono jooju mhm. mhm. loo xam ne njëgu deux cent mille ko def. ah kon da ngeen di jëflante genre client yi mel noonu. waaw xam nga ñaar ñaan yoo xam ne. comme lu ci mel ni wàllu mag. Mhm. wala siru dunya nga mhm. xam siru aduna mhm. wala siru fatan yooyu kenn di ko joxe ci yenn somi na liggéey la boo xam ne lu man ba lu gàtt gàtt dañ ci liggéey juróom ñaari fan wala juróomi fan dañ ko ko liggéey lolu do ko jël di ko jox kenn ko xam dafa dafa ci am ñaari junneem jox la ngir ne la dawal bëgg nga ñaaral ma nga sandi ko lolu do ko def wa sëñ bi yow da nga sincère ci say wax de num mu non waaw deug rek moy moy li sax ñoy ci deug dégg nga sëñ Tuubaa bi muy teg maam Cerno naan Ibrahima allazi lam yufaariqni mhm. laa fi sigarihi wala fi kibar mhm. Cerno mhm. na jikko bu mu ko yaree sëñ bi mas naa yebal maam yi mu yelwaan yi bu na ndawal mu ne ci kawam maam Cerno wax ko ne bëgg la de du tax ma wax la du dëgg. Mhm. Mhm. ndax ci loolu la ko sëñ mhm. moom la xam ñun moom la ñu naan tal gannaaw yàlla. bi ñu juddoo ci islam benn kilifa dafa ne. Eh, yàlla def nga doon doomu aadama doon julli teg ci. bokk ci sa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. xam ne yàlla bëgg na la. Eh, kon. waroo jël sa bopp rek sàggane ko ci. màdd yi nga xam ne moo xaw mm-hmm. ngir bañatum mm-hmm. àdduna lépp lu ñu fi am rek day jeex mm-hmm. ku loo ma at yow ma xeemati fardan jàmm ne war na ko fàttiku jàmm ne bu keroog bis penc di nga taxaw sa borom diir goo xam ne da nga dem ba yaakaar ne yow rek la bind yow rek la bind kon dëgg rek mooy li sax ala kulli yaalin moo tax ñuy biral di ko leeral ngir jàmm yàlla rek xam yàlla xam dégg nga bëgg a dimbalante ak nit ñi rek moo ko waral ñaan yàlla nag képp koo xam ne jug nga taxaw ne yaa rabbi yalla nangou sa ñaan mm-hmm. yalla amul ben ñaanu jaam bu muy hmm mo tax mo xam gaaw mo xam mu yeex hmm deg nit ki mm-hmm. da ngay ko xamne xam ne bari gàllankoor bari hmm nga ñaan ko yalla ñaan gi yex ci mom mu njëkk ñi ni man di ñaan gisu fekk yalla fotal nako ay bakkar mi waron remplacé ko loolu mm-hmm. itam maa ngi ñaaxaat nit ñi ñu ci seen faraid rawatina waxtu juróom ñu fonk ko ti di ko def ndax kat eh, am na waxtu woo xam ne lu ci mel ni waxtu tàkkusaan nit day koy sàggane xëy ñu dàq ko place am dama ko wax toujours te fekk dara warlu ko loolu sàggane tàkkusaan tàkkusaan man léeg leen nit ñëw fi ma xool ko xoolal ko ay mbiram jig ji laaj ko question ne ko sëñ ndax yow eh, yaa ngi julli tàkkusaan mu ne ma man farataal mu julli safar man la kon man di jarul man la ñaan booy boo dem. Mhm. te fonk julli juróom rawatina takkusaan boobu lépp lu la xañ loolu la ko xañ yooyu it dafa am solo. kon julli dina xañ nit doo dara. wallaahi la si nit ñi yemuñ am na ñoo xam ne mbon a leen jig. mbon waaw. Mhm. seytaan lañu àndal. Mhm. dégg nga. fii ak ñu def lu ba da ngay gis seen mbir day dem ci kaw nga gis koo xam ne moom saa bu defee benn safaan. musiba wàcc na ci kaw. lu mu am mu yàqu. Mhm. lu mu doon liggéey bu doon dox cent. Mhm. dégg nga quatre vingt yëpp dee nañ. Mhm. quatre yëpp yàqu nañ. loolu dafa am ci doomu aadama yi. ak fonk sarax. fonk sarax. waaw euh, jaamu yàlla bu ci nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na doomu bu ne bu xamoon li ci sarax bis bu set dana xool kemt lay cëram ni mu mu génne ko ci sarax Sëriñ Sohaybu radiyallahu anhu wax na ni. joxe benn tàngal rek joxe ko sadaxa dégg nga dana yombal jéggi sirat yàlla wax na ne xus min amwaalihim sadaxa génneel li jàpp li ceew si sarax hmm. kon nit ñi fonk sarax nañ fonk sarax dana fànkal doomu aadama junni balaa hmm. boo xam ne waroon na ci kawam macha allah kon loolu nañ ko fonk bu hmm. fekkee am na yeneen laaj yooyu laaj allah waaw man am naa benn laaj boo xam ne bëgg naa ko laaj balaa may tëj ndax wax da waxtaan bi neex na am na solo te li nga fi wax yëpp te neex naa dégg tamit waaye bëggoon naa xam euh, ci ñi nga xam ne am na garab yoo xam ne limoo ko bëggoon naa xam euh, ndax da ngay faj yeneen yeneen faj yu bokkul yi ngi fi wan yi pour que ñiy seetaan aussi mën a xam pour que bu ñu amee euh, loo xam ne ñoom pour ñu ñëw nga faj leen ñu mën la woo ci sa numéro. Mm-hmm. te balaa ñu tëj nga joxe waale sa numéro. Mm-hmm. Mm-hmm. képp koo xam ne daal amee nga yeneen jàngoro yi ci mel yi ma lim nii. bu ko weesoo ndoxu siti képp ku amee ci boo ñëwee ci ndimbal yàlla. Mhm. ñu faj la. Mhm. ci diir gu gàtt. Mhm. dégg nga am maa nag war nga ñaan yàlla nag. képp koo xam ne am nga aajo boo xam ne dagar naa ñaan boo ñëwee ñu faj la ndax fàtte naa ko lu ci mel ne lii. boo xoolee affaire noob la. affaire noob. noob waaw noob noob jigéen noob góor. dégg nga moom dañ koy raxasoo bu dee jigéen da koy raxasoo ci kanam. waa day noot ko góor ki. waaw bu sëy moom lu mu wax mu def ko. ah sëñ bi sëñ bi loolu moom moom du fi indi sama soxna. waaw ndax boo xoolee jamono xam nga dafa yàqu léegi. waaw góor ñi dëgër nañ bopp jigéen ñi dëgër nañ maa day taal wax nga dëgg de. waaw góor ñi bëri bu ñu wàccee liggéey seen barabu liggéeykaay yi. Hmm. yamatuñ seen seen yamatuñ ne si wàcc rek dellu dem ñibbi. ci de. foog ñu jàll ne la ñuy wala nangam ke nangam. demuñu séminaire. bu dee jigéen ñi na ñu bëri ñoo xam tamit yamatuñ seen seen jëkkër ndax jamono ci boppam artisanat lañ nekk mu jub jamono dafa hmm. yàqu hmm. jigen ñi ci bari fu mu toll nii. Mhm. ay jabaram jëkkër lañ ay toujours ñu ngi mooy yalla ci àll bi. waaw loolu moom dëgg la. ndax ñu ci bari seen borom kër yi. Mhm. néew nañ kàttan. ci mhm. ku ju bon dam na leen. ba tuñ ko bàyyi. bepp monté bu mel non ku am bo ñeen ma dimbale la. ta butel bi mo koy régler wa butel bi képp ko am goor ko amoon na jigéen ku am sa jabar ci yow la yam wa am na ci yeneen yoo xamne fas lay doon xéti xanj yi melni wa deng nga. am ni ko fu mu ngi comme dégg nga dañ koy fas man mu sa am comme comme jëkkër. Mhm. mu bëgg mu yem ci yow daal jaaloo yu mel noonu. waaw dégg jëlal li. waaw boo xamee ki muy àndal. Mhm. wala comme topp te ko bàyyi. Mhm. dégg nga am ay jët yoo xam ne dañ koy def jëtu nga buñ ko defee. fas ko ci dégg nga ñetti pas-pas am na ñu ci buñ la ko joxee wax la ñu koy defee. bu soobee yàlla. dana bàyyi la incha allah. sëñ bi daal man bu ma la déggee bu baax. moy eh, garab gi lu bon taxu jog jóg waaye luy defar moko ko jog moy kep ko xamne ne leer na ne sa jabar am nga xel ñaar ni yamul ci yow ñewal jël garab gi kep ko am sa jëkkër aussi te leer na ne sa jëkkër tamit yamul ci yow te gis nga ne lu mu am ni ngi koy yóbbu ci Allah ba ñewal jël garab gi pour lu mu indi indi ko ci njabot gi yakana lolu taxa jog ah, garab gi eh, kon señ bi ñu bàyyi la nga joxe sa numéro waxe fa nga nek ñun ñu ngi fii Yoff Apix 2 bo xamul Apix 2 bu fekke da nga jël yoonu aéroport bi mhm. jóge lu mel ni Padois. Mm-hmm. Euh, boo toppee ba toll ci banque SMS bi après. Mm-hmm. imprimerie Tania. Mm-hmm. boo jëlee sa ndeyjoor. foo laajte hôtel Via Via après almaxni bi. ñëwal na boo ñëwee ba hôtel Via Via. boo ootee. ñu jël si boo duggee ci mbedd Via Via bi. benn kër ci Via Via bi kër gu ci topp. gu ci toppaat te bu bind Adja Seynabou. mooy kër gi. képp ku bëgg a jokkoo ñun. boo ñu woowee 77. 152 66 03. wala 209 ci expresso bi. 209 92 93. wala tigo bi. 76 926 16 10. bu dee ku bëgg euh, imo wala whatsapp. Mhm. dégg nga wala Viber bi. Mhm. sunu 77 boobu. Mhm. de 152 66 03. kuñ ci woo. di ñu jot soow yàlla. xam naa fan yi nag. ñu ngi fi euh, fii ak semaine. dégg ndax dañoo war a jàll ci Mauritanie ndax bëri na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi fay xaar. Mhm. ñu fa jógee danañ jàll Gambie. Mhm. xam naa fan yii ñëw bala ñoo dem bu fekkee waa Mauritanie soxla nañu. Mhm. ci eh, ñi ñuy léegi di faral di topp Sénégal TV. dañ leen jox numéro yi incha allah. incha allah ci a jot foofu rek incha allah bu soobee yàlla. waaw sëñ bi boo demee Mauritanie gars yi nu ñuy def fii. waaw bu ñu demee Mauritanie rek bu ñu joxee numéro bi. képp ku ñu bëgg a jot rek. dañ fi bàyyi suñuy ndaw yoo xam ne. boo ñu woowee dañ leen jox tegtal loo xam ne nooy def ba Mhm. li nga xam ne bëgg nga ko. ñu battali la allah. ñu battali bu fekkee ku nekk mhm. foofu am na ñoon yoo xam ne mën nañ la ko yónnee incha allah. incha allah kon euh, sëñ bi nooy ñaanal mbokk yi balaa ngay tëj. xanaa di ñaanal ñëpp jàmm. rawatina mhm. Sénégal yi. di ñaan képp ku jëflante nga gis bu di jaay Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. di xalifa yàlla na yàlla yàggal ko fi loolu tamit wax dëgg wér. ak mboolem kilifa turuq Sénégal yëpp. ñoo mhm. jëmmal islam ci dëkk bii di Sénégal. ñaan mhm. bépp dëkk islam yàlla mboolem islam gépp am jàmm. Mhm. bi jaay rasulullah. sallallahu alayhi wasallam sallam jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ bi kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax euh, Sénégal TV kontaan na ci seet bi mu la seet si xam naa incha allah rabbi duñ la wàcc benn yoon ci kàttanu yàlla yan nu yàlla jubóole jërëjëf sëñ bi. jërëjëf barakallah.